di ko tàmbalee sëriñ Cheikh Kajoor mi ak njaboot gi fi sëriñ Moustapha Yabal ak sëriñ Maam Thierno sëriñ Lamine ak mboolem kilifa yi nga xam ne fee daje yëpp di bu baax ci kàddu yi nga xam ni eh, day tegu ci dëgg te rafet te ñu sopp bu di nuyu su préfet itam ndax liggéey boobu ñoom ñaar ñoo ko ànd ndax ku am nga ci wàllu boo féete te kenn la ci ak wàllam néew di nuyu maire dëkk bi ak conseil yëpp di nuyu chef de service yi fi daje yëpp yi nga xam ne waroon nañoo teew ak teewul euh, ñun nag li ñu féetewoo ci mbir mi mooy seetal dëkk bi bu ko fi ñëw rek doo fi am benn gàllankoor te loolu defe naa cër la ndax ndax bu fekkoon ku fi ñëw doo fekk mu set peut-être microbe toppale fi wala nga walla nga gaañoo fi wala leneen ak leneen ak leneen eh, eh, imaam sax bala ko nit ki am dafa set d'abord kon nag eh, ñoo ngi ñoo ngi woo mboolem daayira guy mbind bi nga xam ne moo boot mboolem fédération këri buntu këri sëñ Baara yi ñu di leen woo di leen wax ni liggéey bi seen liggéey ku ñëw daleen ci fekk ñoom ñoo ko moom ñoo ngi leen ci woo di sakku ñu woote ko te defe ko nañ ko daan defee itam di woo daaru daaru marnaan ba daaru musti lii ko wër lépp di woo mbàkk kajoor ak li ko wër lépp bàyyiwuñu kenn waaye di woo waa kajoor gépp tamit nag bàyyiwuñu kenn wante nag mënuma jeexal te UGC moom gërëmuma leen mën naa wax mention spéciale UGC lépp lu leen waroon def nañ ko bay demandé di wax ni lu ñu war a def ku am même ñi amoon problème sax boo xam ne seen problème personnel la ñoo war a wuti lu leen ko defaral UGC defar na kon ñoo ngi koy sant bu baax te sëñ Moustapha itam nii la nii nii la leen sant moom itam euh, may wax ci eaux ak forêts ak gendarmerie ñoom dëgg la sant nañu leen de wax dëgg yàlla ndax lu ñu man ñu koy def wante nag daaw kalaame bi moom bari na ndax yoon wii bu fekkee ne ñu ngi ñu ngi ñu ngi ñëw di di di bale si oto yi daanaka des fois dañu leen di téye ba ñu doon bale bu ñëwee fi dañuy fekk ñuy waaj ñaam dama yaakaar ni buñ taxa buñ awee ci yoon bi di ñëw yéeg ca kaw moom manees na leen ni dugg leen ci biir wala naag waaye nag ak kantaa euh, di leen mobiliser ba ñu waroon liggéey si liggéey suuñ def naa ni gënut te man du ma ci bu ma sañoon gendarmerie mooy fi gën liggéey bu ma sañoon police kasaalika ne nekk noonu ndax noonu bu ñu dee di nelaw san sécurité tax kon bu ñu sañoon ñuy def loo xam ne tey bu ñu toogee fii ah, ñu ne alhamdulilah rabbil alamin nañ leen nag wax dëgg yàlla waaye nag danoo bëgg ñu gën a yokk ci ngir bis bii ndaxte saa bu la nit defee loo mënul rek war nga koo sant kon nag ñoo ngi leen di sant dañoo bëgg ñu gën a yokk ngir bis bii beneen bi nga xam ne moo nga beneen bi nga xam ne moo ci topp itam wax naa ko waxati ko préfet dañoo bëgg euh, hôpital euh, kii centre de santé Mbacke Kadior bii ñu wax lu xew ba suñu waxee rek ñu ni sant de santé Darou Mouhty te fii ay këyitam centre de santé la matériel moom la loolu la ñu waxoon sëñ bi man toog naa ministre bi toog ñëw wax ko sëñ bi ñu wax nu quest at mu jot ñu ni Darou Mouhty Darou Mouhty fii du dépendant dafa war a dem ak boppam kon ñoo ngi ñaan préfet loolu nga dox ci beneen bi ci topp mooy gendarmerie bi ba mu yeggee léegi kenn xamul kañ la gannaaw sécurité nit ñee tax ñu di ko def dëkk bi nu wër bépp daanaka ay éleveurs ay éleveurs ñoo fi dëkk mbooloo mu baree fi dëkk nañ ubbi gendarmerie bi mu liggéey ginnaaw xaalisu état bi ñu tabax ko ba pare ni ko fi kupp ub ko tëj ko dem dem te xamuñu lu xew ba ubbiwuñ dimbali nu ci ñu ñi ci sànni mu dem ñu liggéey beneen bi may jeexale mooy waa Azerut gisuma leen fi dégguma leen fi te cilmaxa ba ngaay nit ñaa ngi wasin ci yoon bi nit ñaa ngi faatu ci yoon bi ñaari at bañ xollee tëli beeg léegi defuñu ci dara ñaa ngi am doom ci yoon bi ñi fi dëkkul nag mën nañ koo bañ a wax mën nañ ko bañ a xam waaye man dama faa dëkk di te coono yi sama njaboot di ko jànkoonteel te kenn ku nekk xam na ni ngaay ba cilmaxa mooy xolub kajoor te buñ nee buñ nee mën ngaa tudd téeméeri kilifa yoo xam ne ci kaw tëli bi boobu lañ nekk ñoo xam ne koo ci tudd ñu xam ni ci ci ñi bâtir Sénégal na bokk kon préfet ñoo ngi lay ñaan yoon woowu wóor na yoon wu am doole la ci màggal bi kon noo ngi lay ñaan ngir dimbali ñu ci yoon woowu bu baax a baax te nag euh, li may li may wax itam man waxuma waxu révolutionnaire waxuma waxu tàngaay waxuma ay damay wax ngir askan bi xarabuma kenn tamit ndax wax naa léegi ne ku la defal loo mënut da ko war a set waaye man li may wax askan weeku moom te fii ma koy waxee itam war naa fee wax kon ñoo ngi gërëm ñëpp sant ñëpp tey ñaan yàlla ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah Bienvenue dans votre maison de production GP Gabon Production Avec une équipe dynamique, un personnel professionnel, des lots de matériel de la nouvelle génération, Gabon Production a réussi de devenir une maison de production inédite. Ay photoshooting dans un studio autrement, ay photographes yu xarañ lool, des appareils de la nouvelle technologie. Ainsi, Gabon Production est la meilleure maison productrice du Sénégal. Des photos artistiques, photos de cartes d'identité. Vous les amis, vous les couples, venez obtenir de très magnifiques pour vos événements màggal cant mariage réception ba ci anniversaire contactez-nous ñu daal di couvrir seen événement avec de très belles images des vidéos à haute qualité oui c'est bien possible ak Gabon Production en outre dans le cadre de vouloir servir la population sénégalaise sur le plan économique social culturel et religieux chaîne bu mag bii di Académie Minane TV est à votre disposition avec des informations qui vous seront livrées à temps ak i caméraman yu xarañ lool. contactez-nous au 77 585 57 36 wala ci 77 589 83 83 Gabon Production Académie Médine TV les meilleurs dans les besoins de la population sénégalaise.